Colobane image yi daal dina wër réseaux sociaux yëpp dañuy wone rek ab ñaawteef bi nga xamante ne daal nañ ko amal foofee ca pont Labatt Fall bu Pikine ci fan yu mujj ay samba booy ñoo daal ñëw dindi boulon yi nga xamante ne ñoom ñoo doon téye pont ñu bëri nag xam jéeye bi nga xamante ni li ni mel mën na koo jox ñi koy ñaawlu te nag ñu xam ne ne que lii ab reewaande kese la. dina lor tamit ay bakkan yu bëri tamit war nañ sóoraale loolu de waroo xool lu la tamit nit ki tamit bay def luy lor doomu aadama. luy def lii baaroo yu fi fanaan ñooy def lii. manque de responsabilité la ci ñi koy def maanaam parce que nit ki boo xamee li la war sa dëkk. maanaam am na yenn yoo xam ne du doo doo ko def. boo ko deseeree dem jaay ko feeraay ay téeméer lañ ci fay wala 1000 francs xam nga loolu amul njëriñ. jamono ji nag ñoo ngi ci defaraat gi boulon yu bëri daaj nañ leen delloo ni place ñu daaj leen soudé ba ñu dëgër ngir rekk li ni mel bañ fi amaat. parce que bu ñu ko suudee léegi nga xam ne kenn du ko mën a dévisser wala balaa nga kaa diviser di nga si def loo xamante ni waa koñ bi dinañ ko dégg incha allah bu ñu ko defaraatee nii moom macha allah du am benn problème ñu ngi ñu ngi xam naa dina pare ci si suuf bi les nag ñu bëri dañ fiy ñëw ngir dallu waaye nag jakartamaan yi daal di fi def seeni garage ñoom ñëpp nag seen kàddu benn la maanaam dañoo war a gën a yokk sécurité bi. sécurité waaw sécurité dafa war a doy nag waaw bu baax. état bi dafa war a jàpp sécurité bi. gën a war mooy maanaam ñu ut ay caméra yoo xam ne maanaam dinañuy nekk ci suuf pont bi képp ku fi mënti nekk maanaam ñu lay gis lu fa waaye di def ñu mën koo xam. gars yi waroon a jël ay agent di leen placer ci pont yi pont bu ne ñu teg fa ñaari agent ba ñetti agent ñu saytu affaire boobu noonu kuñ ci gis ngay dindi wii si ñu yóbbu la ci police wala gendarmerie. ca wàllam Ageroute daal di xam ne si communiqué bu mu publié si bile 26 juin que dinañ def seen kéemtalaay kàttan ngir rek appliquer loi ni mu waxee ba ñu mën a punir ñi nga xamante ne ñoom ñoo def bile ñaawteef.